feneen liggéeyalun Guinée liggéeyalun États-Unis Sénégal li ñuy liggéeyal te ñëpp ay sénégalais lañ. barke alxuraan li ngeen bëgg duñ ko def de bëgg duñ ko def de li ngeen bëgg duñ ko def de seeni nit buñ leen di bàyyi buñ leen di bàyyi sunu yoon nekku ci sunu yoon nekku ci ñun 54 pour cent yin amoon ci présidentielles yi taxunoo jóg boo déggee ñu naan 160 députés. cent cent cinquante député loolu cinquante quatre pour cent da koy ëpp loolu taxunoo jóg li nu tax a jóg mooy am majorité assemblée nationale te dafa am ñu leen wateeloon ñu bëgg ñu wateel ñu parce que liñ leen fi wan ci six mois yi jàpp naa ne war leen doy ba wan leen ginnaaw seen nit yooyu leen di wan ginnaaw nag ngeen naan transiment transiment amu fi patriote yi bu leen déglu journaliste yi ak journaliste yi man bépp homme politique bu président Ousmane Sonko jox loxo dinaa la jox loxo bépp politicien boo xamante si nii président Ousmane Sonko ubbil na la dinaa la sama yoon nekkul ci leneen ci lii laa nekk dama ne bu seeni pexe jugoon ñi suñuy nit ñoo jóge ci yéen ci ñun di dem ci yéen mais nit ñee leen bàyyi nit ñee dem ba xam ne yéen du ngeen nit ñu baax parce que euh, coalition boo xam ne dafa bëgg a ñëw bloqué ensemble national ñooñu dañ koy bàyyi dama ne fii transiment amu fi le parti Pastef kenn xamul kañ la gëj a jaay part euh, kañ la gëj a jaay carte mais coalition Pastef bi ñëw ne da ngay jàppale Pastef ñëw ne da ngay wateel Pastef dañ naan la wateel nu ba Samba di ca Demba li ngeen bëgg duñu ko def ñëw leen jàppale président Ousmane Sonko ñëpp a ci xaj Sénégal la ñuy liggéey liggéeyaluñ feneen liggéeyaluñ Guinée liggéeyaluñ États-Unis Sénégal la ñuy liggéeyal te. di la siyaare di la jox sa wàccuwaay maa lay jox sa wàccuwaay moo professeur Lamine Daaru di la wax ne dimanche dafa am lu rëy loo xam ne dafa xew fële ci Tiwaawoon Pël. barke Serigne Bamba. maa la ko wax sunu xarit sunu frère. Ah. Ifraka di ko amal. waaw muy méga meeting. ca terrain central. terrain central ba sa. Tiwaawan Pël Tiwaawan Pël maa ko wax di woo waa Pël waa Kër Massar di waa woo waa waa Mambilor waa jam ñaajo ñàkk rob ñàkk rob waa eh, tëngéej tëngéej tëngéej waaw commune Kër Massar bi yëpp ñu ngi leen di woo waaw ci méga meeting Ibraka Ibraka ak mboolem waa Pastef gépp ñu ngi leen di woo. barke Serigne Bamba. di leen wax ne dimanche le 10. waaw incha allahu rabbi. Oscar Seera Oscar Seera. mitin bay am sa Tivaouane naan Ibraka te moom mooy woote dimanche. dimanche billaahi wallaahi bëgg ñëpp ñëw ca terrain central Tivaouane Pël. waaw bu ko kenn rate incha allahu rabbi. ndax Ibraka da ne. soxla 160 députés. maa la ko wax. Sikra Sele. santaane kon Isa Barke maam Diarra Bousso <laughs> dama ne. waawoon pël ku ko rata dimanche tardé ka kay rek. non sax li ma li ma demee ba ma dama xam ne dina mel ni ma Ardo Ndiaye ma ma ne mu ngi gën a ah, dimanche dimanche dana yéeme sëñ bi. Mbambilor. waaw Tivaouane Pël. Ñàkkurab Kër Massar. waaw Tëngéej. Bayaax Ñàkkurab. Bayaax Bayaax. waaw Tiwaawoon Pël ak Ifraka incha allah. du yomb ku ñu allah yëpp dana ku yéex doo am place. ku yéex doo am place. ndax jinne yaa bari côté boobu. le président Ousmane Sonko woote na dimanche Mbacke. waaye ñun ca Ifraka lañ jëm incha parce que day liggéeyal président Ousmane Sonko.